sëriñ Abdou Faty Mbaalo Ndiaye sëriñ Abdou Faati Mbaalo Njaay mi ngi gane àdduna ci atum 1883 ci dëkk bu ñuy wax Daaru Njaay Njàmbur di dëkkub waajuram sëriñ Daaru Asan Njaay sëriñ Abdou Faati Mbaalo Njaay doomu soxna Faati Mbaalo Njaay la ak sëriñ Daaru Asan Njaay mi nekkoon jàmbaaru ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim sëriñ Abdou Faati Mbaalo Njaay bi mu feeñee jamono ci atum 1883 ci dëkk boobu di Daaru Njaay Njàmbur waajuram sëriñ Daaru Asan Njaay Abdullahi la ko tudde ñu ko daa wooye sëriñ Abdullahi Njaay waaye waajuram wu jigéen wii tudd soxna faati mbaalo njaay moo tax ñu koy dàkkantele ci turu waajuram wu jigéen di ko wooyee sëriñ abdu faati mbaalo njaay waaye waajuram sëriñ daaru hasan njaay abdullahi njaay la ko tudde moom sëriñ abdu faati mbaalo njaay kenn rek la bokkal soxna faati mbaalo njaay mii bennub jigéen la ku ñuy wooyee soxna xari njaay ñu gën koo xam ci soxna xari njaay asan wala soxna xari asan njaay soxna xari asan njaay mi moo meññ ku ñuy wax sëriñ daam xari njaay sëriñ daam xari njaay moo meññ sëriñ ma Samba Ndiaye moo meññ sëriñ Ibra Mbeen Ndiaye kon kii di sëriñ Abdou Faati Mbaalo Ndiaye kenn ku jigéen kooku rek la bokkal sëriñ Daaro Asan Ndiaye ak soxna Faati Mbaalo njaay mi muy ku ñuy wax soxna Xari Ndiaye bi matee dal lii di alxuraanul karim moom sëriñ Abdullahi Ndiaye ñu gënoon koo xam ci sëriñ Abdou Faati Mbaalo Ndiaye waajuram sëriñ Daaro Asan Ndiaye ku ñuy wax sëriñ Mbay Ndiaye la ko jébbaloon mu jàng fa lii di alxuraanul karim ginnaaw sëriñ Mbay Ndiaye moom mu jànge alxuraanul karim la ko waajuram jël sëriñ Daaro Tuubaa Seexul Xaddiim mu wéel am njàngum xam-xamam ginnaaw bi nag sëriñ Abdou Faty Mballo Ndiaye dem na gànnaar àndoon ak ku ñuy wax Baay Sëriñ Saar ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ginnaaw bu mu jógee gànnaar nag daa delsiwaat ci loxoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci njaareem mu fas yéene ko tarbiya sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo ko tarbiya ci njaareem moom sëriñ Abdou faati Mballo njaay mi di doomu sëriñ Daaru Hasan Ndiaye ba nim jote ngërëm ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim sëriñ sëriñ Abdou Faati Mbaalo Njaay mi ngir mu bokk ci ñi doon bindal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim bari na itam laneen lu ko Seexul Xadiim daa liggéey loo ci njaareem waaye daal lu ci ëpp ci mbind la woon moom doomu sëriñ Daaru Hasan Njaay bi ci liggéey boobu ko sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim daa liggéey loo ci diggante mbind ak alxuraanul karim ci la nekk nag ba nim jote ngërëm ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Seexul Xadiim da koo yabalaat nag mu delluwaat ci loxoy waajuram sëriñ Daaru Hasan Njaay moom sëriñ Abdou Faati Mbaalo Njaay bi mu seexul xaddim ba dil siwaat ci loxoy waajuram sëriñ daaru xasan njaay sëriñ daaru xasan njaay ci dëkk bu ñuy wax daaru biram bondel la ko bàyyi woon daaru biram bondel gi sax moom lañ gën a xam ci daarul xaddim sëriñ daaru xasan njaay ci atum 1913 la ko sanc daaru biram bi biitim mooy ñaareelu dëkk bu sëriñ daaru asan njaay sanc dëkk biitim fa la sëriñ daaru asan njaay dëlaloon doomam jii di sëriñ di faatu mbaalo njaay ginnaaw bu mu jotee ngërëm ba sëriñ tubaa seexul xaddim bindub lettre jox ko ne ko boo demee nga jox sa waajur sëriñ daaru asan njaay abdu faati mbaalo ñëwee ba jébbal lettre bi waajuram sëriñ daaru xasan njaay la sëriñ tuuba seexul xaddim bind ca lettre ba wala lenn lu bokk ca lam bind ca lettre ba ma ngay xamal sëriñ abdu faati mbaalo di wax sëriñ daaru xasan njaay ca lettre ba abdullahi moomu du la donn ndax sëriñ abdu faati mbaalo sëriñ abdullahi la ko waajuram tuddee te sëriñ tuuba seexul xaddim itam abdullahi la ko daa wax moo tax mu koy xamal ne abdullahi moomu du la donn man mii lay donn ba tey ca lettre ba itam lenn lu ca bokkitim sëriñ tuuba seexul xaddim ma nga doon wax sëriñ daaru xasan njaay ca biir lettre ba abdullahi moom itam delloowaat naa ko ca suñu boroom ginnaaw bu sëriñ daaru xasan njaay jàngee lettre boobu sëriñ tuuba seexul xadim bindoon doomam jooju di abdullahi njaay ñu gënoon koo xam ci sëriñ abdu faati mbaalo njaay bëccëgu kero sëriñ daaru xasan njaay dafa mel ne lu daanu ndax ci kàddu yooyu sëriñ tuuba seexul xadim wax ci doomam jooju di sëriñ abdu faati mbaalo ginnaaw jël boobu sëriñ daaru xasan njaay yendoo ci kàddu yooyu sëriñ tuuba seexul xadim yëkkati woon ci doomam jooju bëccëgu kero itam sëriñ daaru xasan njaay dafa woolu bépp taalibe taalibe bu nekkoon ci dëkk boobu di daaru xaddiim ginnaaw bu leen sëriñ daanu xasan njaay wooloo ba ñëw ba cëgu keroog mu ngi leen di xamal ne bépp taalibe bu fi bàyyi kooti nañ woo sëriñ abdullahi mii mu taxawu la lii di jàkk jee itam sëriñ abdullahi na koy jiite sëriñ daanu xasan njaay ba cëgu keroog ba tey ma ngay xamal taalibe yi sëriñ abdullahi mii képp koo xam ne ni jiite na la sa yaram araamal nañ ko lii di sawara dëkk boobu di daaru xaddiim itam sëriñ daaru xasan njaay da koo bàyyee woon jëmm ji di sëriñ abdullahi njaay ñu gën koo xam ci sëriñ abdu faati jébbal ko ko mu nekkub dëkkam ngir wormaal ko ci kàddu yooyu sëriñ Touba seexul xaddim yëkkati ci doomam jooju sëriñ Abdou Faati Mbaalu mii nag moo nekkoon taawub sëriñ Daaru Asan Njaay moo magoon itam ci mbooleem doomi sëriñ Daaru Asan Njaay yi bi fi sëriñ Daaru Asan Njaay di bàyyi ko itam moom la fi bàyyi mu mag ci waaye kàddu ya sëriñ Touba seexul xaddim yëkkati woon di ko xamal ne doo donnu sa baay man mii ngay donnu loolu itam tax na ginnaaw bu fi sëriñ Daaru Asan Njaay bàyyi ko mu bàyyi sëriñ Fàllu Njaay mu wuutu sëriñ Daaru Asan xamal ne maa ngi ci daarul xaddiim wéel ak njaboot gi sëriñ tuubaa daal ay waxam du deñ te mag ñi daanañ ko sàmm dëkk boobu di daaru biram bondel sëriñ daaru xasan njaay ci atum 1913 la ko sanc ñu gën koo xam ci daarul xaddiim cere bi muy jébbal dëkk boobu di sëriñ abdullahi njaay ñu gënoon koo xam ci sëriñ abdu faati mbaalo njaay juróomi doomu aadama la ko booleel ak rakkam ju ñuy wax sëriñ abdu karim njaay ngir ñu féete ci dëkk boobu di daarul xaddiim barkeelu ci kàdd gi sëriñ tuubaa seexul xaddiim def ci lettre bi ngir jébbal boobu la ko sëriñ daaru xasan njaay jébbaloon ngir wormaal kii di sëriñ abdullahi njaay ngir kàddu yooyu sëriñ tuubaa seexul xadim yëkkati ci doomam jooju mu bàyyee ko dëkk boobu dem sanc nag beneen dëkk bu ñuy wax tuubaa njaay keroog bi sëriñ daaru xasan njaay di sanc dëkk boobu di tuubaa njaay nanguwul woon a yóbbaale sëriñ abdullahi njaay ca sanc ba ngir kàddu yi seexul xadim wax ci doomam jooju dëkk boobu itam la ko ngir jox ko ko ngir barkeelu ci kàddu yi seexul xadim yooyu sëriñ daaru asan njaay joxoon cër la moom sëriñ abdullahi njaay dëkk boobu di daarul xaddiim la ko sëriñ daaru xasan njaay jébbaloon mook doomam ju ñuy wax sëriñ abdu karim njaay ibnu sëriñ daaru xasan njaay ba tey sëriñ daaru xasan njaay boole woon na ko yeneen juróomi taalibe ñu ràññee woon ci ku ñuy wax sëriñ moodu njaay ràññee woon nañ ci ku ñuy wax sàmba lawbe ràññee woon nañ ci ku ñuy wax usmaan jóob ràññee woon nañ ci ku ñuy wax sëriñ mbay waajur ràññee woon nañ ci ku ñuy wax moodu sàmba astu jibi ak ku ñuy wax sëriñ moor kan giléem kon ñii la sëriñ daaru xasan njaay bàyyeel kii di sëriñ abdu faati mbaalo njaay mii di doomam ngir ñu des nag ci dëkk boobu di daaru xaddiim di dëkk bu sëriñ daaru Daaru Asan Njaay sanc ci atu 1913 mu des ci dëkk boobu di liggéey ànd ak rakkam jooja ak taalibe yooyu ko waajuram jox sëriñ Daaru Asan Njaay lu ñor nag mu it waajuram sëriñ Daaru Asan Njaay ñu jébbal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba ni sëriñ Daaru Asan Njaay génnee àdduna ci atu 1924 bi sëriñ Daaru Asan Njaay génnee àdduna ci atu 1924 ci dëkk boobu di Tuubaa Njaay te indi ko ci dëkk bu sell bi di Tuubaa yëgal ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci njaareem di ko xamal ne sa taalibe sëriñ Daaru Asan sëriñ tuuba seexul xaddim woolu sëriñ mbàkke buso ngir mu taxawu ko ginnaaw bu ko sëriñ mbàkke buso taxawoo ba noppi ba delluwaat njaareem wax ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim lang ma santoon ci sa taalibe ba sëriñ daaru xasan njaay def naa ko ba noppi ba taalibe yi nag tàmbalee jaayanteeg njabootuk sëriñ daaru xasan njaay tëral leen sëriñ abdullahi njaay ñu gën koo xam ci sëriñ abdu faati mbaalo di leen xamal ne na njaboot gépp dem jaayanteeg kii di sëriñ fàllu njaay muy xamal sëriñ fàllu njaay téyel lii di njaboot gi moom nag mu dem desandi ci dëkk boobu ko waajuram di daarul xaddiim sëriñ fàllu njaay wuutu nag kii di sëriñ daaru hasan njaay waaye kii di sëriñ abdullahi njaay ñu gënoon koo xam ci sëriñ abdu faati mbaalo itam lépp lu sëriñ fàllu njaay daa def daana ko ci laaj lii di xalaatam ndax moom mooy magam mu des nag nekk ci dëkk boobu di daaru xaddiim ginnaaw bi nag njabootub sëriñ daaru hasan njaay jógee nañ foofu di njàmbur del siwaat ci dëkk bu sell bii di tuubaa waaye moom dafa wéeni rek des njàmbur ginnaaw bu njaboot gi ñëwee nag lañ sañc quartier bii ñu nekkee di daaru njaay ci njiitul sëriñ fàllu njaay moom mu des ci dëkk boobu di daaru xaddiim ko waajuram dëloon di liggéeyal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba ni sëriñ tubaa seexul xaddiim génne lii di àdduna mu àndaat njaboot gi ñëw ñu jaayanteeg cheikh mamadul mustapha mbàkke ba nëgëne rek mu bàyyi kii di sëriñ fàllu njaay mu yoroon ndonol sëriñ daaru asan njaay ndax kat loolu la seexul xaddiim waxoon na ko doo donn sa waajur wa man mii ngay donn nekk na feek rakkam sëriñ fàllu njaay ba ni sëriñ fàllu njaay ay génne àdduna ci atum 1936 sëriñ mbay fàlloo njaay waat sëriñ daaru asan njaay ba nëg ni rek mu ànd ak rakam jooju di sëriñ mbay fàlloo des nag ci dëkk boobu di daaru xaddim di liggéeyal cheikh mamadul moustapha mbàkke bàyyeeg sëriñ mbay fàlloo ndonal sëriñ daaru asan njaay dëkk boobu di daaru xaddim itim daana fa liggéeyal ay tool àllarba kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke daa ko ko yit ci taayif ak lii di jumaa ji taayif googu ziyaara ji na fa kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke keroog ba mi ngi àndoon ak ku ñuy wax sëriñ abdourahim njaay di rakkam ak sëriñ Abdourahmane Ndiaye di rakkam ak jarbaatam boobu di sëriñ daam xari Ndiaye ginnaaw buñ ziyaare Cheikh Modou Moustapha Mbacke ba ngoon Cheikh Modou Moustapha da ko wax ne Abdoulahi kaay ma ñaanal la nga delluwaat njàmbur ngir toog fa Cheikh Modou Moustapha itam diirub lim fi nekk itam sàmm na kàddu googu Seexul Xaddim waxoon ci sëriñ Abdoulahi Ndiaye mii di sëriñ Abdou Faati Mbaalo Ndiaye ginnaaw Cheikh Modou Moustapha Mbacke ci atum 1945 ànd naag njaboot gi itam ngir ñu jaayante kii di sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma am na tool yuñ daa wax dori gi ñu bari miin nañ ci njàmbur tool àllarba boobu sëriñ Abdoulahi Njaay mi moo ko daa bay daa ko it sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ci xilaaf ak rakkam gii di sëriñ Mbay Fàlloo Njaay ànd naag rakkam sëriñ Fàllu Njaay mu wuutu sëriñ Daaru Asan Njaay ba ni fi sëriñ Fàllu Njaay bàyyi ko mu ànd ak rakkam gii di sëriñ Mbay Fàlloo Njaay mu wuutu sëriñ Daaru Asan Njaay ba ci atu 1959 mu bàyyi koo fi sëriñ Mbay Fàlloo Njaay mii mu génne àdduna nag ci xilaafam ci atu 1971 la génn àdduna ñu indi kii di sëriñ Abdoulahi Njaay ca wetu waajuram wa guy texe ci armeer yu mag yi sëriñ Abdoulahi Abdoulaye Ndiaye ñu gënoon koo xam ci sëriñ Abdou Faty Mballo mi ngi génn àdduna bisub samedi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru rakkaat ji gàmmu ci atum 1379 ci gàddaay gi samedi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru rakkaat ji gàmmu ci atum 1379 ci gàddaay gi dëppoog muy samedi 20 novembre 1959 samedi 20 novembre 1959 ci dëkk boobu di daaru xaddiim di dëkk boo xam ne nii waa juróom sëriñ daaru Assane Ndiaye moo ko sancoon te dëloon ko fa ci dëkk boobu la génne àdduna ñu indi ko ci dëkk bu sell bi di Touba jébbal ko sëriñam ba sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu denc ko ci wetu waajuram wa sëriñ Daaru Hasan Njaay ci guy texe ay xalifaam nag nii la tëdd ci atum 1959 ba atum 1996 sëriñ Mbacke Xari Njaay mooy ki ko njëkk a wuutu ci atum 1996 ba 2009 ñaareelu xalifaam bi ñu tudde sëriñ mbakke Sarr mooy ki ko wuutu 2009 ba nëgë ne ñetteelu xalifaam bu ñuy wax sëriñ Maam Cheikh Njaay mooy ki ko wuutu sëriñ Maam seex Njaay mii nag ñu ngi ko gën a xamee ci Baay Cheikh Mara ñu ko koy ñaanal suñ boroom guddal fanam te yàggal ko ci toogaayu sëriñ Abdoulahi Njaay mi ñu gënoon a xam ci sëriñ Abdou Faati Mbaalo Njaay tey ñaanalaale doomam ji di sëriñ Daam Njaay suñ boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te wanale koog waajuróom wa ak maamam ja dëkk boobu di daaru biram bondel teñ gën koo xam ci daarul xaddiim sëtam bii di seex Abdou Njaay ibnu sëriñ Mbàkke xari lañ fa bàyyi mu nekk jëwriñu dëkk ba moom tim ñu ngi koy ñaanal ci dëkk boobu mu nekk dëkku maamam ak waajuram suñ boroom yàggal ko fa ci taxawaay ba waajuram wam woowu sëriñ abdu faati mbaalo njaay nag am na bis ñu koy fàttaliku muy fukki fan ak juróom ñeent ci rakkaat ji gàmm di bis bi mu génnoon adduna bis boobu nag la njabootam jàpp di ko fàttaliku ci atu 1960 di bi mu génnee adduna ba ca déwén sa ñi ngi koy amale nag ci dëkk boobu ko waa juróom waajuram dëloon di sëriñ daaru asan njaay di daarul xaddiim njàmbur wala ñu gën koo xam ci daaru biram bondel nekk foofu ci njàmbur ñi ñaan ci taawub sëriñ daaru asan njaay ba sëriñ daaru asan njaay tudde woon abdullahi njaay ka xaddim ba mu gërëm ko ñëpp gën koo xam ci sëriñ du faati mbaalo njaay yàlla nañu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem tu guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi amin